mais le 2 avril. 2 avril bokkul. waaw 2 avril la mandat bi jeex. mais il assure l'intérim ba kër gi ki ñëw ko. ma ne le 2 avril. waaw. bu nee damay démissionner. du tax muy démissionner. non hypothèse. du démissionner. non hypothèse j'affirme que du démissionner. j'affirme que du démissionner xam nga lu tax. Uh-huh. constitution bi moo ko obligé mu assurer l'intérim. yow nga yor sa kër yor sa njaboot yor say doom sa charte kër ne la sa doom yaa ngi nii yaa leen war a yore ba seen baay ñëw. nga xëy suba ne dem naa bàyyi leen fi. mais am na ci droit. amu si droit kooku c'est moral encore yow amoo si droit sa biir kër sañoo loolu. waaw c'est moral. man sañu ma ko sama kër sañu ko sax. waaw d'accord mais moom. bu ko defee c'est maa wax loolu je je mhm. considère ça comme haute trahison man Doudou Ndoye sañu ma ko sama xalaatu bopp ne la gëm sañ naa ko sañu ma ko sañ naa ko sañu ma ko gëm ko bu am sax gëm naa ko. waaw d' accord bu ko defee je considère man que ce sera mhm. la haute trahison. moo ko ne. kër gi yaa koy yor ba teg ko si loxo borom. Mhm. yaa xam lu si ne. yaa ko yor juróomi at yaa ko yor tey fukki at ak ñaar. Mhm. waaye xam nga xam lu si ne. yaa war a joxe jox bu jekk xam nga. constitution amul xam nga. constitution bi moo ko dama bëgg ñu du ma hypothèse yu bu caaxaan yooyu. non non non da ngay dimbale nit ñi xam nga nu ma leen na ma leen di dimbalee mooy na ma leen di dimbalee mooy bañ a dugg si discussion bu amul njariñ amul bopp amul génn <laughs> amul bopp amul génn maa lànk maa lànk ba lànkaat mu amul bopp amul génn dugg ah, ci période sama taal waaw déglu ma mayuma la loolu waaw mën na ne <laughs> comme que sama comme que sama présence c'est c'est c'est c'est un facteur du ko def bu ko defee haute trahison. et de tension bëgg ma tontu la man sama mandat jeex na le deux avril maa ko may wax. damay damay maa ko président. fukki at fukki gisuma la. sama diggante yoo xam nga ko boo defee loolu man sa nit maa ne haute trahison la. waa léegi en cas de léegi du ko def bu ko bu ko defee haute trahison. en si le président de la République démissionne le 2 avril bu ko neexee mu démissionner avant la fin de son mandat. lan mooy xew. avant la fin de son mandat. Mm-hmm. bu ko neexee mu démissionné. Mm-hmm. mais bu nee démissionné naa xam nga luy xew. Mm-hmm. constitution bi dafa wax ne président de l' assemblée nationale mooy saisir conseil constitutionnel astafurlah moom mooy saisir conseil constitutionnel bu dee démission moom mooy saisir conseil constitutionnel conseil constitutionnel wax si démission. constaté wax si démission wax. olof lay làkk. wax si démission. ah bu defee loolu conseil constitutionnel mën na denc dossier boobu fukki fan. pendant fukki fan yooyu démission bi amul 2 avril passé na. pendant fukki fan yooyu 2 avril passé na. c'est bu jotee ma débat conseil constitutionnel denc leen denc leen dossier bi parce que kii la ngeen attelé yàq. dafa nga duñ ko mën ñu ko denc fukki fan. ban délai lañ leen may benn loi tegul délai si conseil constitutionnel pour waxtu woowu mu statuer. c'est fukki fan wala ñaar fukki fan mu def li président def denc démission ñetti weer di ko xool. Hmm. waaw k état kenn newul conseil constitutionnel bu démission président ñëwee si 24 heures yi nga koy statuer kenn binduñu ko fenn. Hmm. wax noo man ma dox si kaw ñëpp wax si kaw. conseil constitutionnel Macky Sall amul droit de fi démissionner moo war a yor intérim bi ba successeur ki gagné mu jox ko lenge yi kon te leen dossier bi ba successeur bi ñëw mu jox ko lenge yi nga ne ko démission bi amatul njëriñ pas d'intérêt pas d'action kooku droit la ba te bu loo bëggati bàyyi jàmbur mu nopp lu yi bu leen nit ñi. fu nekk dañuy toll si période dañuy toll si période jàmm. mais mais mais jàmm bi conseil constitutionnel wax moom la Sénégal yëpp bëgg. politiciens yi moomu ñu réew mi parce que man politicien laa c'est pour ñu ma légitimité pour wax. ku ma tax ku ma si tax wax gisuma ko si réew mi en cas de démission. démissionné wul tey démissionné wul non non non man waxuma Macky Sall génn naa ci Macky Sall. Ah, waaw waxal ci keneen je pose une question impersonnelle. waaw en cas de démission du président de la République c'est le président de l'Assemblée nationale. qui assure l'intérim non en cas de démission ah waaw qui assure l'intérim pour organiser des élections pour pour pour trois mois. pour organiser des élections les les président il peut pas être candidat à cette élection. non non il peut être candidat il peut pas faire modifier la constitution il peut pas faire ceci il peut pas faire cela. mais il nomme son premier ministre. waaw waaw yooyu mais loolu non du am non mais dama dama bëgg rek am ci sa sa ah, sa avis kooku cours de droit la ñuy dem université mm. lu tax doo inscrit ñoom sama cours yi ñu jàng mm. loolu dinaa <laughs> cours de droit la dinaa ñëw le droit est passionnant <laughs> dinaa ñëw cours mm-hmm. ubbi na bunte yi wax na lépp fii dara manqué wu fi ku xam droit constitutionnel dëgg laaw c'est mandu c'est man a comprendre c'est suivre nag l'évolution évolution constitutionnelle bi atte ñu daan atteem nga xam ko suivre ko mandu di nga xam ne àtte bi àtte fondamental la pour l'avenir du Sénégal je dis bien pour l'avenir constitutionnel de notre pays ça veut dire que tey Sénégal nekk na dëkk boo xam ne kenn kuñ fi falati amatuloo cëru maa yor doole maa majorité lii lay def amatoo cër boobu